tudd El Hadj Amadou Samb donc man maay coordonnateur REACT donc REACT ben mouvement la mouvement de jeunes boo xamante ni mi ngi rassembler les PME petites et moyennes entreprises voilà donc appel yi lancé Ben, bi mi ngi jëm ci nguuru Sénégal beneen bi mi ngi jëm ci entrepreneur yu mag yi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi te am nañu fu ñu yegg donc ak beneen bi nag bu mujj bi mi ngi jëm ci direction yi nga xamante ni ñi ngi liggéey ci emploi des jeunes PME ak microfinance donc bu appel bi ñuy lancé nguur gi bu njëkk bi mooy que force Covid 19 mooy biinu nu lancé nga xamante ni c'est par rapport à la résilience économique que ñu boole ñu ci parce que boolewuñ ci. boole boolewul ci PME yi boolewul ci start bi ñu fexe nuñ ci boole léegi bu ñu ci boole ñu jéem a dajale ñoom ñëpp kenn ku nekk indi peut-être charge yi nga xamante moom la moom la yor ak aussi ñi nga xamante ni ñoom la doon liggéeyal ñu fexe parce que ñun chef de PME yëpp ñi ngi ak ñun ngi liggéey ak ñun am na nooy waxtaan ak ñoom nooy discuter ak ñoom ba defal leen yenn facilité yi ni ñu doon dàq ak ñiy arrêté seen liggéey dina wàññeeku donc boobu la ñuy njëkk laaj nguur ñi nga xamante ni mooy ADPME ak ANPEJ ak FONGIP ak ñooñu di liggéey ci mbiru jeune donc ñooñu aussi bëgg nañ leen rencontrer jox leen ñun idée yu ñu yor parce que aussi bu ñuy wax ay réseau PMA ak yooyu ñun mbir yooyu dañ ci yàgg liggéey donc ñun liñ ci mën ak kii yiñ ci mën a joxe orientation yiñ ci mën a joxe gëm nañ ni mën na jëmale mbir yi kanam ba au moins dina réduire un peu les impacts donc du coup tout ce qui est ANPEJ ADPME ñoom ñëpp bind nañ leen lettre am na si ñenn ñu ñuy waxtaanal am na ci ñun war a sax donc que ñu toog ak ñoom ñu dimbali start-up yu ndaw yooyu parce que suñ ko deful mën 50 pour cent si ñoom 50 pour cent si ñoom donc les PME aussi banques yi nga xamante ni état bi day liggéey ak ñoom.

ay tp la mooy entreprise yu ndaw yi nga xam ni amuñu NINEA amuñu registre de commerce amuñu dara mais ñooñu lii wolof naan mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk ñooñu ci ci jur gi lañu bokk donc ñooñu aussi war nañ leen mën a am nu leen accompagner parce que bu ñu génnee ci crise bi ñun on a rendez-vous avec l'histoire donc bu ñu génnee ci crise bi nii ñuy fexee ba nit ñi wér ñiy toog seen kër ñi kii ñu fexe ba nga xamante ni nous réduire parce que qui moom mënul ñak si crise moom bu xamé ba des am rek no def am ay ay conséquences mais ñu réduire les conséquences te pour cela que ñu intégrer les les les les dirigeants de PME et les dirigeants de start-up te day jaar ci nguur gi day jaar ci institutions financières ak les directions bu nous bi moy les entrepreneurs ñu melna les ku melna na nous ku melna Youssou dégg nañu ndimbal bi ñu défal état bi ñun kontaan nañ ci parce que ñun lañ ko defal donc bu ñu Ndour jëlee alalam jox ko Bougane jël alalam jox ko loolu ñun ñi lañ ko defal mais ñi ngi leen di ñaan noonu ñu jëlee dimbali état bi nan ko dimbalee les PME ak les start parce que aussi état mi ngi employé mais mën na ni li privé di employé état employé bi mën na ni li nekk ci start-up léegi xale yu Sénégal du duñu am jom koo ci gis mi ngi kërti kërti mi ngi liggéey mi ngi góor góorgóorlu donc loolu buñ ko yàqu quoi buñ ko yàq nañ ñu fexe dimbali kenn ku nekk ñu dimbali la su ko defee ñu mën a réduire te loolu mënoo ko def te jaaroo ci ci ci ci ci les PME ak les start-up te réseau REACT bi dafa dajale ñëpp tout ce qui est PME club des entrepreneurs dafa dajale les chefs des PME dafa dajale en même temps les chefs de start-up ci Facebook bi ñëpp ñu yoroon ay entreprises yo xamante dañuy développer Facebook ñun ñëpp dañuy dajale donc bu ñu amee message bu ñuy lancé donc message boobu noonu la ñuy lancé.